baax a baax di leen di indil leen premier première personne bu ñu war a àtte au tribunal de la conscience populaire kii di Bassirou Gueye Bassirou Gueye nag nekk na fi avocat nekk procureur nekk na fi juge jaar na Tamba jaar na dëkk yu bëri waaye kii di Bassirou Gueye nag cilmaxa mbakool la juddoo cil maxa mbakkool la baayam nekk ba fa la faatoo cil maxa la yaayam nekk ba faatoo fa kii nag di baayam di jéera jéera géy mooy baayam jéera géy moo jur basiiru géy yaayam di daam géy daam géy ak jéera géy ca cil maxa ñoo jur seen doom jii di basiiru géy bassiru Gueye nag am na ay frère am na sax sœur bu gaañu et cetera et cetera Bassirou Gueye ngi soqee ko ci famille boo xam ni pauvre ci nit ñu benn pauvreté bu extrême Bassirou Gueye amuloon lu mu lekk Bassirou Gueye amuloon lu mu naan Bassirou Gueye amuloon lu mu fajoo Bassirou Gueye yaay ji da doon cagatu bassiru Gueye yaay ji da doon tox cigarette Bassirou Gueye procureur yaay ji da doon naan sàngara doon fréquenté baar bu ñu woowee xurwa xurwa jàpp leen xurwa foofu la yaayu Bassirou Gueye procureur doon dem di fa toog suba ba guddi di joxe taatam te am na jëkkër di wut lu mu lekk pour jox ko Bassirou Gueye donc Bassirou Gueye mii ngeen di gis alalu caga ci la dundee ba day ni mu day nii seen kër nag ah sàkket la woon ak zeng amuloon sax buntu kër buntu kër boo xam ni amuloon tëjukaay yàmbalang la defoon sàkket zeng foofu la Bassirou Gueye juddoo ca Cilmaxa baayam nekk chauffeur di dawalal ñi nga xam ne ñooy commerçant yi nekk foofu mu leen di dawalal di wut lu mu lekk donc ku nekk baayam chauffeur doonul toog ca kër ga yaayam ah, baar bu ñu woowee xur la doon fréquenté fa la doon jaayee boppam fa la doon taxawaaloo fa la doon mandee fa la doon toxee ah ñooñ ñoo jur ki nga xam ni mooy Bassirou Gueye yaayam di Dame Gueye baayam di Diéré Gueye ah, donc nay fréquenté baar bu ñu wooyee xurwa Bassirou Gueye ñàkk tax na mu dem di fréquenté benn kër gu nekk à côté bu ñu woowee kër Baye Ndëri Sare kër baay Ndëri Sare soo fils di Modou kan Sare ak Bassirou Gueye comme seex euh, Bassirou Gueye kër Baye Ndëri Sare la doon lekkee kër Baye Ndëri Sare la doon naanee kër Baye Ndari Sare la doon demee douze kër Baye Ndari Sare ah moom fa la doon defee lépp ndax amuloon lu mu lekk amuloon lu mu naan bu baayam di def euh, di dawal moom mi ngi xaar yaayam jóge baar ba indi weccet bu nga xam ne dañ koy togg donc Basirou Gueye nee nañ lekk mburu sax problème la woon ci moom parce que buñ lekkee mburu rek euh, maanaam luuma ba luuma wala kenn jóge ca dëkk ya dëkk taax ya ñëw indil leen mburu ñu lekk mburu waaye cere lañ doon ndekkee di añee cere di reeree cere des fois ñu añee ceebu keccax ak ceebu ñebbe Bassirou Gueye nag c'est un très grand cultivateur baykat la bu xam mbay donc Bassirou Gueye ñi ngi doon toog ci buntu kër gi nga xam ni ci buntu butigu euh, Modou kan Sare Modou kan Sare nag mooy xaritam di doomu Baye Ndëri Sare dafa amoon boutique ca marché ba foo fekkoon Basiirou Gueye ma nga ca marché ba marché Thilma Xaba fa la doon toog di fa naanee ataaya di fa waxtaanee kii nga xarit na xaritam la di fa wut fukki dërëm wala cent franc bu nekkul foofu ñi ngi ko yóbbu ci àll ba muy bay ku mën a téye machine mbay la Basiirou Gueye ku mën a bay la ku mën a téye machine mbay xam na ko bu baax ay ati ati at loolu la liggéey da ngay wommat fas mu yor machine ba moom day njëkkante ci machine ba téye machine ba di bay dinañ la expliquer lépp donc yaayam nag dafa paralysé woon avant sa mort yaayam kii di Dame Gueye sonnoon na lool très fatigué Bassirou Gueye toog na di ko xool yaayam di sukuraat di caddi caddi ba sedd guy dafa paralysé woon avant moo faatu yaayam nag sonnoon na moom Bassirou Gueye mere woon na yaayam lool ci la la mu doon def donc moom Bassirou Gueye yaayam daf ko seetaan ba yaayam sedd guy caddi caddi ba sedd guy ci kawam di waccu ba muy faatu nag yaayam doon waccu waccu bay waccu deret Basirou Gueye di ko xool muy caddi caddi ba sedd guy ci ay loxom Basirou Gueye wàcce loxo ya lem dem woote ne leen kaay leen meer ba faatu na ci kanam ba meer ba faatoo baay ja nag moo njëkk a faatu ba meer ba faatoo ca la Basirou Gueye dem dax tabaxaat kër googu daane ko def ko R plus 2 son mi ngi doon dawalal mi ngi nii sa maire son père mort avant sa maire sa mère a trop souffert avant de mourir son père conduisait yaa papam da doon dawalal commerçant bu ñuy wooyee Badara Mbaye bappam ne woon chauffeur baar bi yaayam doon nekk nag tout le temps s'appelle Khourwa en 2012 quand Bassirou Gueye ah, avec l'arrivée de Macky Sall quand Bassirou Gueye fut nommé procureur il a installé une poste de gendarmerie et fermer le bar donc Bassirou Gueye tëj na baar bu yaayam doon mandé baar bu yaayam doon jaay boppam baar bu yaayam doon ko wutalee weccet di ko ko jox ah, lim pour mu lekk cere ak ñebbe wala pour mu lekk ceebu kecax donc Bassirou ci alalu caga dundee ci baar xurwa woowu nag Bassirou Gueye ba mu faloo ba procureur ah, Macky Sall falu ñëw teg ko procureur a ah, ci la teg foofu poste gendarmerie moom moo ko fa teg fa la tëjee baar ba nag moo xam ngi ay vieil souvenir la saa yu ko xooloon rek day xelam day dem ci yaayam day dem ci cagatu ga naanum sàngara yaayam ak toxum cigarettu yaayam euh, et cetera et cetera donc Bassirou Gueye moom mujjee tëj baar boobu waaw buntu mbayeen nag fa la Bassirou Gueye doon fréquenté ñi buloo bu bolot mbayeen moom mooy kii nga xam ni ba dara Mbay mooy baayam fa mu doon euh, ñaari kër lañ doon fréquenté parce que benn lañ da ci buntu kër ga dafa amoon ñaari banc ban euh, euh, mur yi donc Bassirou géey foofu tamit dafa doon fréquenté kër diggante kër Ndari Sare la doon lekkee mais kër euh, fu baayam nekkoon chauffeur muy baayu di di baayam di Jéeri géey nekkoon ba dara Mbay loolu moo tax ñu naan mbayeen kër mbayeen tamit dafa doon toog ci bunt ba nga xam ne am na ban ñaari ban foofu lañ doon toog aussi di waxtaan moom Bassirou Gueye Bassirou Gueye nag ku mënoon fen la bu doon fekk gaa yi jotaayoo buntu kër mbayeen di bolo di carte bu Bassirou Gueye tëllee di ñëw ñu ne noppi leen noppi leen moytu leen duulkat baa ngi ñëw basa ngi ñëw Bass Gueye lañ koy wooyee duulkat baa ngi ñëw ku mën a fen a ngi ñëw wàññi leen wax ji noppi leen fenkat ba yegsi na donc Bassirou Gueye de nature ku munoon fen la ci ba muy nekkee jeune ku munoon fen ku munoon raconté la koo xam ne ñëpp dëkk ba yépp ci cilmaxa mbakool xam nañ Bassirou Gueye ci kàccam ci fenam loolu nag lu ko topp la lu ko yàgg topp donc bu ñu demee ba Bassirou Gueye falsifier ay procès verbaux c'est parce que Bassirou Gueye dama leen di indal background cegam maanaam li mu doon normal li nekk ci deretam waaw dañ ko doon wax nag naan noppi leen bu ñu toogoon buntu mbayeen moytu leen Bassiroo ngi ñëw Bassiroo son quartier Santhiaba la tudd boo demee ca Cilmaxa Mbakool quartier ba Santhiaba Bassirou Gueye nag ku mënoon football la capitaine la woon ak aayoon Bassirou Gueye ca Balba Bassirou Gueye ca mbay ma ñaar yooyu yàlla may na ko ko ak fenn Bassirou Gueye ku munoon football la bokkoon nañu dàq football ca Thiel Maxambakool Bassirou Gueye dàqoon bokkoon na ci ñu dàq fenn ca Thiel Maxambakool ba Bassirou moo nekkoon capitaine équipe bi nga xam ni moom mooy euh, ba en 2012 la door a tabax seen kër waaye sàkket ak zeng woon mu daane ko def ko R plus 2 même pas un an kër gi nga xam ne amuloon sax buntu kër. yaayam bu feebaree di sukuraat ba sedd guy bas gay faalewu ko da ko mere woon du ko tudd da doon fréquenté baar bi baaru euh, doon caga yaayam voilà donc après la retraite du vieux Jéeri Gueye c'est bàyyi ndëri bàyyi ndëri baayam bu mu dem ba nekk màgget ci chauffeur mënatul tawalati sonn ah ki nga xam ne fu mu doon dem di fa lekkee mooy bàyyi ndëri sare moo doon continuer di entretenir ak nourrir njabootu Basirou Gueye yaayam demoon na ba nga xam ni boo demee ba nekk caga bu màgget gaa yi duñ la tëddee yaayam baayam demoon na ba retraité yaayam doon caga ba màggetee ci baar xurwa donc jeunes yi wala ñi fa doon ñëw di wut caga vraiment dañ doon seexlu yaayam bi nga xam ni mooy daam Gueye faatu na nag baayam tam faatu na donc yaay ja ba mu sonnee yoratul baay ja sonn retraité ah dañoo jël Basirou Gueye ak njabootam Souleymane Gueye di frère bu mu bokkal ndey ak baay ak ñeneen ak séeram bu faatu ak ñeneen ak ñeneen ñu jël leen jox leen kii di bàyyi ndëri sare moo leen doon dundal di leen entretenir moom Serigne Bassirou Gueye moo ne woon équipe wetaan ba nag màgg daan la tudd màgg daan quartier ba moom mooy euh, euh, quartier ba moom mooy Santhiaba waaye équipe nawetaan ba màgg daan la tudd ou Bassirou Gueye était capitaine d'équipe Bassirou Gueye baykat la woon ca toolu bàyyi ndëri sare ya ndëri sare ki leen doon jox lekk dafa am ay tool Bassirou Gueye xam na yol ma tool ba yol ma tool ba ca mbërtin tool ba ca tuunin tool ba ca ñaxal yii yépp Basirou Gueye bay na fa ba loxo ya xotteeku bay na ko ba loxo ya dagg bay na fa ba loxo ya yor machine bay na fa ay ati ati at yu mun a jënde ay livre yu mun a jëndee ay kaye yu mun a lekkee yu mën a naanee donc Basirou Gueye bay na ca toolu bay ndëri sareya ka euh, village Yolma tool ya fa ne village euh, Mbërtin tool ya fa ne village Tuunin tool ya fa ne village Ñaxal tool ya fa ne buy bay di wëgg bay na wëgg na xont na way na di téye machine ak di wommat fas Bassirou Gueye yàgg na ci baadoo la ci extrême pauvreté la juddoo misère ndóol ak jafe-jafe àdduna bu demee tey ba Bassirou Gueye mel nii seytaane ko ngemb jox ko pouvoir bi Abdou Diouf di recrité deux cent magistrats benn année fekk Bassirou Gueye université ah foofu nag la Bassirou Gueye nekkoon fac droit université euh, de Dakar mu demoon defi ji concours kooku ndax Abdou Diouf moo ne woon day recruter ay magistrats fac droit la jóge dem def concours ba à deux cent magistrats Bassirou Gueye am chance génn ci donc Bassirou Gueye noonu la doonee magistrat ci concours la ko doonee ci bi nga xam ne Abdou Diouf dafa waroon recruter deux cent magistrats donc mu dem université jóge fa defi concours ba yàlla may ko chance mu génn fa loolu moo ko def magistrat donc